waa mais man de ànd naa ci ak quatre-vingt-quinze pour cent quatre-vingt-quinze pour cent ànd man en personne li may wax nag bu ma engagé engagé na ménager yëpp parce que ñun ménager yëpp bi ñu toogee saytu ko xam nañu ànd nañ ci a quatre-vingt-quinze pour cent parce que c'est normal bon bu nekkee ni dañu wax ni euh, mbër da daan bëri du jot avance aujourd'hui mbëri dañu dañuy jot avance mais ménager bi confiance mbër mi am ci moom jiital ko su mënee fexe ba mbër mi di jot li muy am wàccoo naa mbër mi beneen bi ci topp caution c'est normal dangay gis ay combat yoo xam dañ koy tëgg bañ ni suba la mbër mi jël li mu am lépp def ko ci def regroupement def lépp nga toog fi ngay regroupé ñu suba la combat bi ngay préparer sa ay ndugg ak yooyu ñun la làmb ji amatul est-ce que foofu waruñu ko romb c'est normal kon CNG bu ko sécurité amul ci loolu dafa wax ni même su nekkee reporter nañ combat bi caution bi dañ koy téye ah, avance nga joxoon mbëri jeex na sa diggante ak ñoom te sanction aussi mën na la ci dal su nekkee promoteur moo moo bu nekkee promoteur moo reporté combat ci coobareem parce que taxi yi am na lu mu tënk kenn ku ci nekk am na lu la war a mën a arrivé loo xam ni yàlla bu mu egsi bu egsee ci yow làmb ji dàq na ko waaye dàq ko ci sa coobare mayetuñ ko kenn loolu mu Moussa Fini jeex na ci làmb ji. loolu am. non ah, daawul am cest à xam nga jàmm ji ak négocier mais règlement c'est règle c'est le règlement. nga lu am lu ñu réglementé wul ci àddina doo ko yóbbu fi nga ko bëgg a yóbbu. mais bu règlement excès nga ñëw ñun la lii la la yoon may lii la la yoon xañ mais ku dugg ci loo warul dugg la ci dal yaa ko teg sa bopp waaye ku gëm liggéey rek jàpp naa ne li CNG wax di nga ci d'accord li CNG wax di nga ci ànd te ku bëgg jàmm te bëgg lu baax rek di nga ànd ak ci li CNG wax ñun de ménages yi nga xam ne ñooy engagé mbër yi ak ñi nga xam ne ci ay promoteur ñi ngi ànd di liggéey ak man yàlla boole na ma ak ñoom amu ci kenn koo xam ne mës ngaa tëgg desel ko 1000 francs te ñaan ñu ko yàlla ba ilaa yawmi lan lan lan la ménager. waaw tey par exemple su ménager bi ñëwee ñu war a déclarer xaalisu mbër mi mu jàppale promoteur bi dagg ko déclarer lu yem au cas où bu ci catastrophe amee ñoom ñaar ñu jàppante dañ koy sanctionné retirer licence am règlement bi ñëpp la dënk c'est-à-dire lii noppal nit ki kay mooy teel a nangu rek jaar ci yoon yi boo jaaree ci yoon yi amoo kenn problème di am jàmm ak CNG di nga liggéey sa liggéey di nga teg sa mbër ci yoon. te yow it nga nekk ci yoon te doo sonal kenn waaye boo tegul ci yoon sanction bi wàcc sa kaw te bureau ménager du ci mën dara te la défendre. léegi dañuy wax ne xaalisu sponsor dañu koy andi au niveau du CNG du lu CNG di laal mais dégg ay mbër di def ay sorties après le combat yoreel nañ ma tant de millions yoreel nañ ma xaalis bi kii nii yoreel nañ ma lële CNG ni waa d'accord. comme yéen sponsor da ngeen koy dawale parce que du ñëw ci moment bi ngeen ko bëgg waaye kaay leen ngeen ñëw ñu xaatim ko fii su ngeen ko xaatimee ba mu xam ne yorel na la yorel na la ngeen bind kayit man ma téye kayit su ma téye kayit su ko defee après nag au cas où su délai bi jotee fayuloo yow ki nga séqal su boobaa yoon dafay daal di wax ni su euh, su mbër mi di dem ci yoon CNG daf koy accompagner loolu mooy règlement yu bees yi génn waaw ndogal yaa nga xam ne CNG jël na si yow nee pour cent. Mhm. lan moo tax àndoo ci à cent pour cent lan yan point nga non amul bu ma ci ànd cest boo déggee man la ànd naa ci quatre-vingt-quinze boo koy ut kay boo amee sax cinquante-cinq pour cent ànd nga ci lépp. daal moo tax man la ànd naa ci lépp. ñoom daal li ñu wax non amul su ma ci amoon lu ma àndul dama la koy wax fii mais li ñu tëral lépp ànd naa ci. parce que lépp pour sécuriser làmb la ku bëgg defar nag li ñu bëgg ànd ñoom ménagères yi tamit ñoom nañ ci. ànd nañ amu ci kenn koy contesté parce que au contraire ñoom ñoo ci ëpp sécurité bu njëkk da nga daan gis mbër man mii daaw jël mbër moo xam ne maa ngi ko maa ko yor jël na licence jox beneen ménager mu di ko bëri loolu te ki jël licence waru ko yor te ren même ren ji pour nga engagé benn mbër écrit bi dana la autoriser dañ jël benn papier mbër mi yor ko moom ngay représenté au niveau du CNG ñu xam ne yow mi yaa engagé mbër mi su boobaa kenn amatul droit mën a jël licence su kenn naan la jox naa ko téyel ma nit kenn du ko dénkaane ci rien dénkaane nit ak i noppam te xamul ki nga koy dénk mooy kan ay kayitamee loolu c'est grave daaw am na fi te promoteur de lutte moo ko fi def daaw jël suma licence boo xam ne licence su mbër la man amul lu jékki-jékki yëg ni signé nañ contrat bi te mbër mi jotul avance yooyu nag moo tax yu mel noonu CNG di ci jël ay mesures loolu la wolof naan ñax bu waw dana lakk gu tooy. à chaque fois rek règlement boo gis mu génn rek li koy delloo au niveau du CNG gars yi ñooy bëri di bëri bëri ba def lu ëpp CNG jël ci ay mesures c'est-à-dire que règlement règlement wu làmb noonu lay demee